yéenekaay yi. ci yéenekaay yi. El Hadji Ousseynou Ndiaye. ak El Hadj Ousseynou Ndiaye dal leen ak jàmm ci xibaar yi yéenekaay nga xam ne rek moom leenu xëyandoo ñu daal di koy door ak laas yéenekaay yéenekaay gi duñu xam ne na yokk yéenekaay gi duñu xam ne démb kay ñetti nit dong la nga xam ne rek moom moo di réewum Sénégal yéenekaay xam ne jàngoro ji kay démb kay ak wàññeeku maanaam daal nga xam ne rek ñoom ñooy faatu ci réewum Sénégal démb kay dafa wàññeeku lool an yéenekaay gi duñu xam ne nag lépp loo xam ne rek jëm na ci jàngoro ji maanaam daal am na yeneen yoo xam ne daanañ ko gis ci réewum Sénégal tey nag jamono ji wàññeeku na lool muy rey yu bëri yi nga xam ne rek Dakar naa si na woon ak xale yi nga xam ne rek dañu leen doon fitnaal ci mbedd mi enquête yéen kaay duñu xam ne donte loolu yi wàññeeku na waaye lépp loo xam ne rek jëm na ci wàlluk école yi war nañu koo seetaat yéen kaay gi duñu xam ne jamono ji kay jumtukaay yi nga xam ne rek moom la war a jëfandikoo ngir aaru ci mbas mi dafa mel nag dafa des lool waaye jàngoro ji askan wi nañu lool xoolal fi nga xam ne moom moo ko yéenekaay gi di Vox Populi di ñu xamal ne gannaaw loolee ji nga xam ne rek moom moo di pays dugg na ci réewum Sénégal am na juróom-ñetti nit ñoo xam ne jot nañoo ñaar ñoo xam ne jot nañoo ñàkk seen bakkan diwaanu Touba jàngoro ji nga xam ne rek moom moo di pays am na fa ak fi nga xam ne rek moom moo di Kidira Saraya ak ba ci loñ Le Quotidien yéenekaay di ñu xamal ne jamono ji kay jàngoro yi moo wër ndomb réewum Sénégal xoolal grippe aviaire ba ma ngay bëgg ba tax na yi nga xam ne rek ñoo nekk ci bitim waxatuñ dara ci ginaari Sénégal yi yéenekaay gi di ñu xamal ne Covid nga xam ne rek moom moo jàngoro payse l'observateur yéene kaay di ñu xamal ne jàngoro yéeme kay te doy waar jamono ji jamono ji ñoo dugg ci réewum Sénégal la Tribune yéene kaay ne ko da ko wër ndomba Walfadjri yéene kaay di ñu xamal ne ba ca ëpp doole di covid jamono ji ma ngay daane entreprise yi am na entreprise yoo xam ne ay jafe-jafe yu métti yoo xam ne rek ña ngi koy jànkontal lu jëm ci wàllu tourisme ak yu ni mel daanaka dafa dee kenn waxatu ci waxam ñeneen ñaar wax ba jegeent réew moom moo di Idriss Seck ak Macky Sall yi dalal na ko kay ca sekk ji nga xam ne waa tasaara nañ ko wax ko fépp maanaam daal gannaaw déclaration de patrimoine bi nga xam ne rek jotoon na koo def ca OFNAC taskatu xibaar yi daal koy siiwal yéene kaay gi xam yoo xam ne rek kii ci kaay gi duñu xam ne ñoom kay waroon nañoo ñëw ci loo xam ne rek jëm na ci wàllu ne moom la ñu fay def moom daa lànk bañ ne moom du egsi ci réewum Sénégal ki lànkoon bañ mbirum couvre-feu di Aminata Lo xamal ne moom kay jamono ji ji dina jàkkaarloog ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di àttekat bi waaye nag moom Aminata Loo Dieng mbirum moome maanaam daal saaga yi nga xam ne rek doon na ko wax takk der yi ana moo ko enregistré na leer laa la wax saaga yi ndax loolee yoon la wala du yoon libération yéenekaay dina xamal ne maanaam daal coowal Dakar dem dikk maître Moussa Diop ak ña ko jiite jamono ji coow la gannaaw ba ñu tëjee yenn ci ay compte que àtte ba danañu ñu ko jiite ba 2023 moom njiitu réew mi Macky Sall kor Marème Faye Sud Quotidien yéenekaay moom ñëw ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di faux gendarme wala sax ay policier maanaam daal ñu koy wuyoo te gi dañu xam ne loolee business bu dox la léegi de gaay dañ ciy business tey nag askan wi am na ci ñu bëri ñoo xam ne xàmmeewuñ yooyu la tëni latir bi yéenekaay diñu xamal xibaar gu doy benn jàngalekat ak benn waykat ku siiw la ci réewum Sénégal de yéenekaay gi duñu xamal ne ñoom kay dañ leen a ñu yor ay faux billets keneen xamal mu nekk ñu doy waar école Mame Cheikh bu nekkee ca Tamba yéenekaay gi duñu xamal ne benn moo fa nekk jàpp élèves yi nekkee foofe di yóbbu ci ay tabax yu égut ku ca nekk mu ku mu am lu mu séq ak yow moom yëmu ca bu ca paree da lay filmer bu la soxlaa woowaat la boo lànkee mu ne la dama koy publier de damay publier yëf yi de moom boobale étudiant jamono jii teg nañ ko loxo waa àdduna day bëgg a tukki wala nu mu demee te ñoo sànni ku ne peel laay lay la